salaamaaleykum sama gars yi maa ngi ziar oto bi fi la ko gars yi jël see ñi ngi ko jël see fii nii Baxdaat quarantal bii voilà waaw Fadel business ñoom ñoo ko moom léegi bi ñu ko jël see dañoo déclaré ni oto bu weex bala ci ginnaaw ngeen gis mu annière la dañu déclaré nii dañ ko fee jël si ngir jaay ko benn artiste finalement ñu mujjee gis ko ci internet yëpp gars yi ni déclaré ni benn artiste moo ko may benn jabar mais loolu amul ñu bàyyi ci xel bu baax waa Sénégal fii mooy Fadel business quoi ngay xam ni. entreprise la buy liggéey lu yowul bon day jaay quoi voilà. salaamaaleykum sama gars yi maa ngi ziar oto bi fi la ko gars yi jël see ñi ngi ko jël see fii nii Baxdaat Quarantal bii voilà waa Fadel business ñoom ñoo ko moom léegi bi ñu ko jël see dañoo déclaré ni oto bu weex bala ci ginnaaw ngeen gis mu annuaire la dañu déclaré nii dañ ko fee jël si ngir jaay ko benn artiste finalement ñu mujjee gis ko ci internet yëpp gars yi ni déclaré nii benn artiste moo ko may benn jabar mais loolu amul ñu bàyyi ci xel bu baax waa Sénégal fii mooy Fadel business quoi nga xam ni entreprise la buy liggéey lu yowul bon day jaay quoi voilà. salaamaaleykum sama gars yi maa ngi ziar oto bi fii la ko gars yi jël see ñi ngi ko jël see fii nii Baxdaat quarantal bii voilà waa Fadel business ñoom ñoo ko moom léegi bi ñu ko jël see dañoo déclaré ni oto bu weex bala ci ginnaa ngeen gis mu annuaire la. dañu déclaré nii dañ ko fee jël si ngir jaay ko benn artiste finalement ñu mujjee gis ko ci internet yëpp gars yi ni déclaré ni benn artiste moo ko may benn jabar mais loolu amul ñu bàyyi ci xel bu baax waa Sénégal fii mooy Fadel business quoi ngeen xam ni entreprise la buy liggéey lu yowul bon day jaay quoi voilà. salaamaaleykum suma gars yi maa ngi ziar oto bi fi la ko gars yi jël see ñi ngi ko jël see fii nii daat quarantal bii voilà waa Fadel business ñoom ñoo ko moom. léegi bi ñu ko jël see dañoo déclaré ni oto bu weex bala ci ginnaaw ngeen gis mu annuaire la dañu déclaré nii dañ ko fee jël si ngir jaay ko benn artiste finalement ñu mujjee gis ko ci internet yëpp gars yi ni déclare ni benn artiste moo ko may benn jabar mais loolu amul ñu bàyyi ci xel bu baax waa Sénégal fii mooy Fadel business quoi nga xam ni entreprise la buy liggéey lu yowul bon day jaay quoi voilà. salaamaaleykum suma gars yi maa ngi ziar oto bi fi la ko gars yi jëlsee ñi ngi ko jëlsee fii nii Baxdaat quarantal bii voilà waa Fadel business ñoom ñoo ko moom léegi bi ñu ko jëlsee dañoo déclaré ni oto bu weex ba la ci ginnaaw ngeen gis mu annière la dañu déclaré nii dañ ko fee jël si ngir jaay ko benn artiste finalement ñu mujjee gis ko ci internet yëpp gars yi ni déclaré ni benn artiste moo ko may benn jabar mais loolu amul ñu bàyyi ci xel bu baax waa Sénégal fii mooy Fadel business quoi nga xam ni entreprise la buy liggéey lu yowul bon day jaay quoi voilà. salaamaaleykum sama gars yi maa ngi ziar oto bi fi la ko gars yi jël see ñi ngi ko jël see fii nii Baxdaat quarantal bii voilà waa Fadel business ñoom ñoo ko moom léegi bi ñu ko jël see dañoo déclaré ni oto bu weex bala ci ginnaaw ngeen gis mu annuaire la dañu déclaré nii dañ ko fee jël si ngir jaay ko benn artiste finalement ñu mujjee gis ko ci internet yëpp gars yi ni déclaré ni benn artiste moo ko may benn jabar mais loolu amul ñu bàyyi ci xel bu baax waa Sénégal fii mooy Fadel business quoi nga xam ni entreprise la buy liggéey lu yowul bon day jaay quoi voilà.